sarax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa ña ñuy woowee VIP muy ponkal ya nekk ca lamb jag la leen di waaj ren l'heure est grave pour les VIP loolee la journal ba xëy bind muy Balla Gaye 2 di Eumeu Sène di Gris Bordeaux amul kenn ku journal bi dàq ane balance am moo waral journal ba xëy ne vers une cascade de chômeurs VIP mboolem ñi ñuy woowee ay VIP ci lamb ji boo moytuwul duñu bëre ren Balla Gaye 2 bëreem wóorut Eumeu Sène bëreem wóorut Gris Bordeaux bëreem wóorut gu mu gàtt am na beneen weer bu nekk ca biir te ca bëre diggante mois d'avril ak mois de mai ci am fanweeri fan yoo xamante ne kenn du ca bëre diggante boobee weeru koor waa korite ñoo fa bëre beneen ba mooy ñàkk gi ñu ñàkk ay promoteur journal ba xam ne téye nañ léeg Nicolas Gaston Mbengue ak Aziz Ndiaye génn nañ làmb ja loolee moo waral ñu xalaat ne Balla Gaye 2 Bombardier Eumeu Sène Boy Niang 2 Modou ba ci Ama Baldé boo mooy tuur duñu bëre de foofee journal ba ko tuddee mooy équation à plusieurs inconnues amul kenn lu mën a waat ci bile combat ne dina am ren même staffu Luc Nicolaï ba sax ñaari wax lañ fay dégg foofee sax ñenn ñi njort nañ ne combat ba danañ ko fomm ba déwén bu dee diggante Bombardier ak Eumeu Sène foofee combat la ko tuddee am na promoteur bu doon dox bile combat te waxoon ne bu kenn tudd ab turam ba waa kër Bombardier génnee dañoo ne combat bi taxaw na Eumeu Sène ñoom ñépp a ngi xaar promoteur moom it boobu moytuwut ca géeju année balance ba dana ci feey mbooleem adversaire yi mu soxla ci làmb dafa mel ni dañ koo ragal Pa Abdou Fall moo doon jéem a taxawal digganteem ak Ama Baldé waaye boobe ba léegi dara sottiwut Ama Baldé Modou Lo lañ ko mujjee jox ñeneen ña ca des ngir tàllal ko loxo mooy Balla Gaye 2 Eumeu Sène Boy Niang 2 Bombardier Gris Bordeaux waaye dafa mel ni sawaruñu ci Tapha bu dee Lac de Guiers 2 jóge ci victoire ci kanamu ngir taxawal kombaam bu dee Gris Bordeaux moom it problème mu kase moo tax ci géeju arrêt balance ba dana ca feey Pa Abdou Fall fëggoon na buntoom bëgg digganteem ak Boy Niang 2 waaye 50 millions yam ko fay da koo xeeb moom le troisième tigre de Fass dafa xamle ne moom ak 50 millions loolee du ko tax a sëgg bu dee rëg-rëg ma doon dékk ay magam Bombardier Gris Bordeaux Balla Gaye de Lac de Guiers 2 ñooñee dañu koo du mooyu bu dee ñi amateur yi jàpp ne war Malick Niang Forza Moussa Nesti Diane Faye ñoom ñëpp ñu ngi xaar ku leen woo sax dugg nañ ca géeju année balance ba fay doo nga ca des loolee moo waral journal ba xëy ne saison bi dana bokk ci saison yi gën a yéeme bu ñu jàllee ca éco ca CNG dañ fay fekk face à face Pape Robo ak Zo Technique 2 doon amal keroog altine foofee ca DTV bile combat face à ba jàll na ñu ngi jàpp combat bi le 23 février 2020 stade bu Bargny moo nar a accueillir bile combat bu dee combat Aboy ak fils ñu taxawaloon boobee ba léegi régularisé guñ ko bu ñu 48 heures maanaam ñaari fan samedi ordinateur gagné na ci ñetti gala samedi ca gala ba faata production doon tëgg ca ñaaxaar la daan ëbbali yóbbu ndam la ca dimanche ba la jàll jiloor ca gala boobee waa GIE jaaxum bugaan doon daan demi final faada singaan bu palmarès ca final ba mu am ngaan sekk ñu gën koo xam ci Ibou Senghor 2 ba mu jëlee final boobee moom ordinateur la jóge foofu jëm Foundiougne foofee ca Foundiougne la am Serigne Ndiaye 2 final daal koy jaaxale mooy ci suñu papa Ali Diop amateuru lamb bu mag ba moom Ali Nguy Diop ñu gën koo xam ci Paul Diop wax naka ko doy ngir remplacer Alioune Sarr kenn ki mën a remplacer président Alioune Sarr ci bopp CNG bi du kenn ku dul Tyson mais nag Mouhamed Ndao Tyson moo mën a wuutu bile docteur bu mag ci lamb ji jërë ngeen jëf mbokk yi li moo gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah